daf may yónnee it ay yëf yoo xam ne pour euh, loo xam ne nit koo fonk muy sa xarit nga nga am dara lu baax yéene ko ko yónnee ko mhm. wax dëgg yàlla mu kooku d'un mais dafa am leneen parce que Modou Kara buñ koy tudd murit gee tax te murit googu dafa nekk sous menace wax naa menace bi fa mu tàmbali bañ bëggee dajale jullit ñi réew mi conseil islamique supérieur di valider président la république te sinon du nekk président di wa di valider député di wali valider loi bu ko assemblée watee ni ki nga xamee ne buñ watee loi bu ko président kiwul en conseil de ministre du mën a dem loolu nag bañ ko defee la leen tubaab ya ca France ñiy fal ñi ne fii ne attention attention murid yi noonu France lañ noonu tubaab yi loolu nag ci biir liggéey bi ñu koy liggéey yow da ngay dégg ne suñ maam yi ñoom ñëpp nii lañ meloon ñu commencé di créer murid ak tijaan murid mi ngi mel ni yow sa sa west bi Euh, wala sa ah, ni mu ànd ak sa montre ak sa kii rek lu ànd la luy com complémentarité la dégg nga ndax sëriñu tijaan yi lu ñu wax Cheikh Tidiane rek sëñ Bamba wax wax na ko lu ko ëpp ci lu rafet ak lu baax nee na radiya an sibtu ko tijaan yi xam nga kon jéem fa dugg loolu ci lañ jéem a jéem a basé pour. seen ñii nga xam ne ñoom seen i surga lañ ñoo leen fi teg. menace bi président yi menace bi ci yoonu murit mooy lan menace. dama ne léegi dafa dafa représenté menace parce que dafa bëgg sëriñ si seen yoon nekk ci doxalin réew mi loolu la looloo tax ba ñu tabaxee Touba yëpp ay école sëñ saa yi woo leen ne leen ñaata ngeen ci def daal ne nañ leen delloo xaalis bi ñu ci def loolu pour ñoom loolu France mosu ci kontaan de waaw duñ fi jàngale français alxuraan lañu fi jàngale xasaay nangam nangam bon bref li am importance mooy lan mooy ne euh, Baay Faal yi en réalité force de sécurité lañu woon ci murit gi depuis sañ Touba Cheikh Ibrahima Fall moo nekkoon garde rapproché kenn du ko jege ak lor te te te duwul ne Cheikh Ibrahima Fall def na la li mu la war a ba pare ñoom ñu juddu di ay doom ak ci sëtam nekk ca loola sécuriser Touba sécuriser murid yi ndax ñu wegee leen ko loolu nag dañoo dem ñoom daan nañu yor ay armes nangootuñu ñu yor ay armes seen tenue yi ay tenue militaire la dañ ko wëlbati bu ko def ay tenue folklorique mooy njaxas yi njaxas yi tenue militaire la tenue militaire boo sax même parage li ñuy solne ay njaxas la rek mhm. genre ay njaxas la dégg nga euh, donc ce qui important moo di ñàkk am une garde léegi maa ngi suggérer Macky nag ni mu amee garde forêt forestière am garde xaw ma pénitentiaire am garde xaw ma lan mais na créer garde religieuse du def na xaw ma lan euh, des maisons religieuses dugal na ko am na ci ministère yoo xam ne mooy toppatoo les maisons religieuses. Mhm. mais da ko def seen sécurité bu ko defee xalif généraux yi am ci seen ron ñoo xam ne ñooñu. da nga yaakaar ni religieux yi dañu dañu dañu dañu am dañu soxla euh, sécurité. jéemuñ fee rey sëñ Abdou Khadre. sëñ Abdou Khadre Mbacke. waaw jéemuñ ko fi il a fait l'objet de trois tentatives d'assassinat jéem nañ ko ci sëñ Saliou au moins deux fois troisième bi nit ñi yëguñ ko mais booba ci benn appareil ci appareil état bi boo xam ne otom dafa jógewoon xel comme jëm si Touba ñu def guet-apens pour fetal ko ba ñu ne dañoo foogoon ni trafiquant la yooyu loolu am na mooy doon troisième bi mais euh, nit koo xam ne moo tere ñu def fi njombe il est toujours en danger murid daal ñi tolloog ñoom yow le pape du Vatican du yor na sécurité pourquoi ñun duñ ko am nañ ko am nañ ko am sinon tey bu amoon saay-saay bu falu ne tey dafay attaqué Touba ñëm fa nekk ña fa nekk kon ay seeni dënn rek la ñuy tàllal leen de waaye dañuy dee ñu jàll ñun dañoo bëgg ku bëgg a attaqué Touba tiit ni yu ñooñu seen doole yi kenn mënu leen attaqué boo waral suñu xel du dal waaw d'accord donc donc man foofu laa xool xool ne léegi lan moo am rapprochement bi ak centre de redressement waa loolu laa bëgg indi dama ne waaw su fekkee ne sëñ Modou Kara dafay euh, jël ay tenues jël ay troupes def ay euh, gestuelle euh, paramilitaire kara sécurité waaw mhm. loolu ka murit sécurité mën nañ ko ko tuddee dégg nga c'est pas une sécurité la perso sécurité personnelle de Modou Kara mhm. mais moom ci moom day jaay ba kanam pour ñi ci des man dama bëgg ñu xoole yi fi neneen la cause la causalité mhm. toujours dafa am importance même ci science il nga am causalité facteur causalité dafa am importance lu tax am ay sëriñ yoo xam ne dañu yor seeni ponkal yu leen di wër parce que ay saay-saay jéem nañ fa fee képp koy wax nag ne buñ leen jo may ñu am seen sécurité ñooñu saay-saay si lañu bëgg ñu gàñe sëriñ si te sëriñ si moom jamais se laisser faire la mmh. donc loolu moo tax nga dem témoigner ko sa non li tax ma témoigner ko bu feebaree ma dem fa yàlla tere bu ñu ko jàppoon ma dem fa bu amee soxla ma dem fa xewam yépp dama ciy dem sama la man it sama am la laa waaw kii ñii kenn mënumaa tàqaleeg ñoom kii sëñ Modou Kara kii sëñ Moustapha Sy Moustarchidine ndax man xam naa kan mooy Cheikh Tidiane Ahmed Ahmed Tidiane Sy waaw looloo tax ki tax ma fonk ko ku jara fonk waaw ñooñu kenn du ma tàqaleeg moom kenn mën leen a ba du ma def ñoom nii d'accord loolu moo tax euh, pourquoi mu xalaatoo leen ngeen mën a def benn parti politique nag kii PVD la kii PUR la kii FAP la. Mhm. xalaatoo leen ngeen def benn benn. lu jot yomb. waaw parce kenn ku nekk ci yenn am na parti politique am. ci olof laa tontu faram-fàcce lu jot yomb faram-fàcce naa ko. Mhm. Mhm. mais lu lu mën a am. waaw lu jomb yomb la waaw lu jot yomb amoon na déjà. ndax nee naa la Baye Niass ak Cheikh Tidiane Sy àndoon na jël seen parti ñu ñu créé élection yi. kon kay seen i doom ak seen i sët war nañu mën a defaat la même chose. booy le problème. Mm-hmm. d' accord am na ci leneen loo xam ne bëgg naa ñu aborder ko xam naa mooy nekk question yu mujj yi mu aju ci mbiru euh, yaa ngi koy dégg sax ñuy wax lu fi jëlee les villes la muy muy Pikine Guédiawaye dakaar Saint-Louis ak yooyu ndax jàpp nga ni loolu itam. lu fi jëlee lan les villes. les les villes quoi comme maires mm. yi. maire de Dakar ak yooyu. Mm. je pense que yi am nga information boobu. waaw comme ñoom dañuy dañuy comme ñoom. waaw ay surga lañ. dañuy roy ci seeni sang. kon nañ bàyyi ba Paris def loolu boog ñu door a def loolu comme Paris dañ ko daan tëkkalee ak Dakar. waaw loolu tam leer na. Mhm. Mhm. rek la. d'accord Paris tasul. Londres tasul. Washington tasul. Pékin tasul. Euh, Tokyo tasul. ah ñu bëgg a tas Dakar. Ah. kon de la yaa yàlla waxoon ci alxuraan xaw ma lool ne maa sabaqakum minhaa min ahadin ma manaan indi ngeen loo xam ne kenn mu su ko def leen jiite kon day loolu mi ngi war a xew ci àddina bi. d'accord dañu gis leneen itam muy ci wàllu politique bi président ne day élargir ñu gis euh, lu mel ni Idrissa Seck ñëw fekk si ko. Mm. te ci élection yu mujj yi ci xëccoo la ñu nekkoon ñoom. Mm. ndax del dikkam ci gouvernement bi. Mm. ci ci ci mouvance présidentielle bi sax la yor mais gouvernement bi ba tey ndax moom lañ jox ses Euh, am nga ci mbettel bi nga ko déggee wala déet. man d'abord ci jëmmi Idrissa Seck. Mhm. man ak sama ak Sidina mi yëpp dañ daan joteek moom publiquement depuis mu wax affaire bàkkaag maakaag yaakaag yooyu mais wax dëgg yàlla ki nga xam ne mooy Serigne Moussa Nawel. Mhm. di kilifaam di sama lépp. Mhm. su nga photo bii. Serigne Moussa Nawel. ci kanam ñëpp la ma ne kii nag. dama la ko dénk mi ngi may dégg sëñ Moussa Nawel ñu mhm. tu caaxaan ngi may dégg mu ne ba dama la koo dénk jàppal ma ko keroog laa changé position jàpp ko toll nañ ba teg nañ ci ay weer ma oo ko ne la kon la ma waxoon maa nga ca mhm. fan yi passé am na koo xam ne dafa jëloon initiative dem ci moom de ko dama laa bëgg a di muy man mii mu ne ko kooku kenn xajul sama diggante ak moom ndax nii nii laa ko jàppee mooy li ma sama kilifa sant te danaa fa dem te xam naa ne wax dëgg yàlla boo waxee def ko ce qui important daal mooy moom du koo xam dafay jóg rek def lu mu bëgg xam naa li mu defit euh, naqarewul ay kilifaam. te Touba lu ko doon lu ko def politiquement mën nañu ko analyser li nga wax yëpp mën nañu ko rafetlu de wax. waaw waaw waaw ndax politiquement mën nañu analyser. Euh, waa man de ni ma ko analyser woon. waxoon ko ci yeneen i rajo. Mhm. mooy Idriss Seck réew mi lay wut. Mhm. naka jekk te dañagul di ko wut te waxuwul ne wutatu ko. Mhm.